waaw أرسل إلى جميع الثقلين من سوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi nuyu sunu kilifa yu tedd yi fi di sàkku ñaan ci ñoom bu baax di fàttalee ne dafa ne loolu fii nekk te loolu moo am ba tey ba Serigne Saliou daa waxoon ne fépp fa ngeen daje ko fasal bi Mbàkke rek moo ma fa nekkal mm. loolu waxoon na ko ñëpp dégg te noo wii ci loolu nag di sant bu baax ci seen teewaay ci suñu biir di ko rafetlu di sant ci yéen ñaan bu baax a baax xam naa ne nag dinañ gàttal kàddu yi bu baax di nuyu sëñ José yi ni jëng nii di njiital daayira bi ak magi taalibe yi ñëpp ak sëñ xaadim jóob mi doon wax léegi di nuy kenn ku ne ci turam ak santam di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm barki sëñ Massamba waaw ah, li may fi may tënk sama wax rek mooy benn aaya alquran boo xamante ni bii nañ koy fàttali nit ñi nañu xam ne màggal loolu moo alquran dafa waxoon ne سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمن نت لخسي جاي باح وكلا نقص وكلا من أنب... نقص من أ... كلا من انباء رسول كلا نقص من انباء رسول ما نشدد به فؤادك يبدي في ما حوى وكلا نقص عليك أكيد. من انباء الرسل ما نشبت به فؤادك يو صلى الله عليه وسلم بو كيس ما ني نيت لي خيس يونتي لي مي دوبل لي رك لا موريت بو نين ما تاخو فوف ما كال بو دمتي بو تي جيريو لي مي بغا واخ جيريو لا دار ما لان نشبت به فؤادك بو في ديكي سا گم نا گنا دگر دوتو سيكي ساخ لي گاني لولو لا ني دوي واخ تاني سيغ مسامبا ak wa dañ koy dëgërali suñu pas-pas ak suñu yéene ak suñu ngëm maa nusabbitu bihi fuaadaka moo ci jëkk wa jaaka fi haadihi alxaq boo fi jóge nga xam ni dëgg ak fen ndax ñu nekkoon ci dëgg la ñuy kenn ci ñoom kon nag alxaqu la ñuy seet dëgg la ñuy seet moo tax ñuy màggal wa mawisa mawisatun moom itam dañ ko fi jële wa zikra ak fàttaliku yàlla waaye nag ñi ko moom mooy li mu nii ni ñuy gëm kon yàlla na ko yàlla defal ci barke sëñ Massamba yàlla na sunu gëm doxe fi dëgër ci bu ñu nettalee ci sëñ Massamba ay xisal mu wàllunu gëm gu gu sax wàlluñu sax ci dëgg wàlluñu ñuy dund ci laa biirante ak baaxe wàllunu nu bañ fàtte yàlla loolu la waxtaane ku fi nekkaloon sëñ Touba di jariñ sëñ Xaadim li mu waxee xam naa ku ko bàyyi woon dana mën waaye man fi nga xam ne fi lay jëm rek mooy dafa am loo xam ne damay dégg ñuy wax ci sëñ Massamba te duñ ko tudd mu kenn du ko tudd mooy sëñ Massamba yatiim la jirim la muy question bu doy waar sëñ Tuubaa doon jàngal nit ñi ndax dafa am bëyit ah, bu mu bind wax ko ci jirim te xam nga ne sëñ Masamba la ci jublu woon sëñ Tuubaa dane waltu bashir bi al yataama dawaaman ansihim bihi abaahum kulla xiin yàlla na nga bëggal ci man jirim ba faw nañu xam ne man maa man jirim te jirim yàlla da ko fonk sëñ Touba loolu mu doon defanteeg moom dafa am lu ñu ci doon jàngal li mu doon def ci sëñ Massamba maanaam jëriñ boo xam ne fekk fi way juróom waaye daaw mujj gën ñëpp ndax matam loolu ndax sallallahu alayhi daf ne ni sëñ rek yonent bi nee na baytun fiihi yatiimun yukram nee na malayka yi duñu giib mukk ci kër goo xam ne dafaa ne ñu dafa taal te sëñ bi dafa waxoon ne waltu bashir na nga bëggal bii ci man xaadimul sol aljataama jiriñ yi dawaa man ba faw waaye nag nañ leen defal ansihim bihim abaahum kullahum mu seen bàyyi baax baax baax jiriñ bu ma jàpp na fàtte bàyyam xam ne maa gën ci nit ku dul man loolu mu doxal ko ci digganteem ak sëñ Masamba kon yar gi ko yar koo xamante ni ki bàyyi xutbu samaan la woon suñ moom moo ante seen xutbu la loolu moom ñi xam-xam nañu loolu génn àdduna mu juddu ginnaawam feeñ jamono ginnaawam léegi la ko sëñ Xaadim wax muy kawtif boo xam ne bëriwul lu muy am sëñ Tuubaa kenn xamul lu muy doon waaye Maam Mor Anta Sali it ku yéeme ndax sa sa wajur wàcc fi ku feeñ jamono nga ne naa ko laaj kuñ koy tuddee loolu ci moom lañ ko jëkk a dégg te dootoo ko déggaat nag hmm? loolu dootoo dégg ko wax maa ngi dem bàmmeel ne laaj saa bàyyi lu muy tuddee doomam ji olof nag day def lu mu yàgg digg rek mu dagg ci noppam boobu naan cëy rek waaye loolu moom ba histoire sosoo ba léegi déggu leen benn yoon la am ba noppi sëñ Tuubaa nee na sëñ mooy taawam moom noonu la ko jàppe woon sëñ Massamba sëñ Massamba dafa bari taxawaay yu mu taxaw ci sëñ Tuubaa dafa taxaw temm wan sëñ bi nag ko maay sa taaw sëñ bi taxaw temm wan ko ne maay sa baay maay sa sëriñ maay sa ndey maay sa baay sëñ Massamba moom amul kenn sëñ Tuubaa rek la am sëñ Tuubaa def lépp ci moom mu dellu léppam ci sëñ Tuubaa gis nga nag mur salif dëgg dëgg dëgg mooy sëñ sàmm jullit la nak mur salif balaa koy doon da ngay doon jullit bu kenn sikki sàkkawu sëñ jullit xam kenn du doon mur salif boo dumu jullit axam bo bu yoboo yoboo génn ci mur di jullit axam yóbbu nga doon jullit axam ba noppi ndax dégg bi ko bi wax ci abdin muridin ah du ngay jëkk a doom soo ko doon murit dañ lay nangul sax jaam nangu ñëpp xam ne jaamu yàlla bu wér nga la soo ko doon murit sëñ ma xam ba dafa taxaw taxawaayu shariatu mutahara wa xaqiqatu munawara laab gi ci shariatu ak leer gi ci xaqiqa lépp la boole murit dafa muritu sëñ Tuubaa bu wér jàng bu wér liggéeyal sëñ Tuubaa bu wér dund dund murit ba jóge fi noonu sëñ Massamba doon dundee murid murit la mu dëgg la gëm sëñ Tuubaa ba mu jigi boo ko gisee da ngay defee ne sëriñ bi la waaye li ko def mooy sëñ Moussa Ka dafa waxoon ne yonente yi alxuraan tuddaale tur ya laa lim ñu tolloog càllal ak suñu mbër ya moo tax waa kër sëñ yi ñu doy sëñ Ka ya lim ñu suñu ya maanaam alxuraan vingt cinq yonent rek la cité nommément tudd seen tur maam maram ba ci sëñ Masamba ñaar fukki góor ak juróom rek la mhm. mhm. ñu rek waaye loo fi tiitaroo loolu ñëw na ci biir sëñ Tuubaa moo tax xel dafa baax sëñ Tuubaa ni koy taataani xel ndax nee na yaxutu lii zahiran zahar man am naa sayir si ñëpp gis ñëpp xam nañ ne duma morom kenn ci sayir dañ ci wax neen ci sayir bu ma yi waaye nee xel yi laay waxal ba baati nam lahum xaxar neen xanaa du ngeen ma sax ci dof dañ tubaab nee na ci kii ma ay dëgg mooy koo xam ne xel wi dafa lënd dëgg dëgg mu xam lu ne nee na kooku moom attanu ma fu ma gis mooy gën a daanu ba fii la waaw koo xam ne bu ñu ko tuddee nga gis sëñ Saliou soppeeku sa yab dégg naa ku ma wax ne ma boo nga àggoon na ci boo tuddee sëñ tubaab day dajale bëñam yi nga dégg ñu def kii noonu bu ko defee nga nott ndax dootu fi ne te xoolal dimension si yab laat sëñ Massamba ni ko sëriñ bi def loolu dafa war a doon jàngat ci ñun ñëpp dafa war a doon jàngat ci ñun ñëpp ñu jàngat ci lii ma wax fexe ba xam ne sëriñ Touba waxuma moom waaye mat gi muy def ci kum mu defar sax neexut a xam kon nañ leen góorgóorlu ñun ñëpp ci royaat ku mel ni Cheikh Massamba wax ji nag du fa xaj ndax liñ ci war a wax yëpp lu ci xaj joxekatu addiya la woon ndax sëñ sëñ Fall wax na ci bayit yi sëñ Xaadim doon wax ne sëñ Massamba dafa mel ni ruum ak ruu doomu aadama yàlla da ko takki na nit ñi sëñ Massamba dafa bari woon njariñ baax ba nee na nit ñi mënuñu ko muñ nee na bu ma saan toog nit ñi dañuy toog rek jëmale bu kenn xamul waaye kenn du mën a jóg ndax boo toogee ci itam doo bëgg a dem te loolu mooy melo murit waaw moo tax may wax ne nañ góorgóorlu di roy suñu kilifa yi bañ leen di yéemu yéem moom ñëpp ko man yéemu yéemu moom ñëpp ko man waxuma toppandoo it nag ndax léegi nga gis daanukat bu génn naan ah ñooñu kenn da leen a mën a toppandoo sëñ Saliou mu baax seytaane mooy def loolu buñ la nee royal sa kilifa mu ne la kooku boo mënoon mel ni man doo jébbul kon nañu roy suñuy kilifa te Cheikh Wal Moustapha ñëwoon na murit mooy ku mën a wax ak ñëpp wax naa ko keroog nee na murit ku taxaw sa kanam lu mu kawe kawe sa nawle lay doon moo tax sëñ Modou Karaam yi ma sopp ko dama mas di waxtaan ak moom ci si wàllu gëm sëñ Tuubaa moom defe naa ne àgg na ci foo xam ne doy na waar mu ma moo wutu si si si ko daf maa recevoir may napp te xam ne murit bu ñu ko nappee rek du murit ma ne ko ah mu ne ma def ma ne sëñ bi kaan bi ma yor bu ma neexee de soppi ko sëñ moo dama ko nettali de kaan bi ma yor bu ma neexee soppi ko ñàngoor moo xam ne nii maa ngi yow sax du xaja noom fii ne ko sëñ bi moo ko defee nooy def nee na ma ne baax bu ma koy balaatee ci yow kay laa lay laaj nooy def <laughs> yaa nga war kat man jaan rek laa ragal dama doon seetlu rek am na sama kër koo xam ne sax bu ma génte jaan dama ko may la. dama ne da ngay mu gis nitub sëñ Tuubaa koy nag mu ne ma nitub sëñ Tuubaa ku mu gis ne jàpp ne moo kale ko man la liggéey li sëñ Tuubaa waaw man wax ñëpp ñëpp doon sa nawle kenn du la kenn du fàq sa bët ku du sëriñ bi waaw yal nañu yàlla dimbali ci loolu dafa dafa gàtt waaye nañ ko tënk foofu jërëjëf yàlla na sama borom defal barke ci barke sëñ Massamba barke bu yaatu bi man leen di wax nag benn secret sëñ Massamba moom bu bëgg a bari xaalis moom def ñaan ci dara jàmm dootoo ñàkk dara wax nag sëtam yi xam nañ li ma wax moom suñ borom da ko jox duma ko tudd nga noppi loolu moom dafa nekk ci turam nekk ci mbiram waaw moom moom xiiwul gaaw na ci lool yal nañu yàlla may xiiwul yu yaatu si barkeem jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ jërëjëf Baye Fall sant nañ baax Diop xanaa nañ comme la wax sa xel li ci métti mooy gàtte ne gàttaay